Bon, la famille, on est bien arrivé à Dakar, Alhamdulillah. On est là avec le président du photo ak waa aéroport mais personnalisé. Président. yes ak si nañ ci jàmm. ci jàmm waaw. donc euh, alhamdulilah sant yàlla journée tey bi waaw une belle journée. voilà vraiment vraiment Bignona a été formidable. kontaan nañu Sénégal Casamance yéen it waaw vraiment tout le monde c' la capitale du Sénégal. allah donc yéen ñëpp ni waxtaan yi neex na discours yi neex na. macha allah kontaan nañu. ñu ngi nuyu bi aywa. man moo ay woon en tout ngi remercier ñëpp. surtout <laughs> que waa MDD nga xamante ni ñoo organisé woon yëpp. di faral di wax rek lépp en tout cas le président Ousmane Sonko mi nga xamante yàlla moo ñu boole. ci dëgg ak jub ak jubal. ñu sama collègue ensemble nekk sama xarit. kenn ku nekk mu amee jàmm tey mën naa ni Sénégal moo ànd ak Ousmane Sonko dem mhm. Casamance. Mhm. li may faral di wax rek ni mën nga rey bakkan doomu aadama mais mënoo rey xolu doomu aadama mhm. te loolu nga ko tere mu gën réew mi mhm. mais mënoo yaakaar naa ni ñi ànd ak Ousmane mi bu ñu génnoon ci réew mi réew mi jeex Sénégal jeex naa ne tey jii loolu nga xamante ni moom lañ doon wax naan tere nañ ko mu génn réew mi mhm. tey ànd xamante ni tey jii ñooy waa réew mi dem moom fi ñu bëgg a def kon am na yoo xam ne il faut que ñu arrêté ñoo ko bokk mi ngi nii jàmm rek lay am jàmm la ñu ko yéenee réclamé naa ko si Ahmadou Bamba. Mhm. dara bu mu ko dal. ndax mhm. yaakaaru ndaw yi la. fii ba 2024. Mhm. ñu ñëpp ñu àggal. macha allah macha allah macha waaw ma euh, li honorable wax nag. daanaka jarul teg dara. alhamdulilahi rabil alamin dem nañu Ziguinchor dem Bignona def li ñu war a def mu di cérémonie ah, bu ñu am yaakaar cérémonie bu macha allah bien organisé wax nañ fa wax ju am solo ñaanal nañu martir yi dellu si nañu ci jàmm fii ci Dakar Ousmane Sonko ngi nii taxaw gis ngeen image yi à Bignona ñu bëgg rassurer tout le peuple sénégalais gis nañu ni fii ci biir réew mi ak bitim réew ñëpp seetaan nañu ko alhamdulillah malaise bu passager ndax tàngoor bi ñun ñëpp bi imam bi bi ñuy jàng alxuraan ku ci ne ci ñun sa xol tooy na ñun ñu bare bare ku ci ne tuur nga rangooñ mhm, mhm. ndax lu rëy la man sudee si la ma fàttali si la ma doon fàttali macha allah tey umra bi bi ma sudee si di def xatm di ñaan sa xol dafa jooy foofu noonu macha allah mhm. tey jii maanaam bi nga xamoon ne tey di xatm bi ñaan yi mu doon ñaan ñi fi jógee moo ma dellu waat moo dellu si ak photo xale yi man bi ñu yéegee rek dama xol président c'était intense c'était intense bari na sax xam nga démb ñu ngi doon wax batalu Joola mu doon tiis boo xam ne mënut a denc ci xol yi ba léegi barki démb li am nu ñëw mbooloo ma fa tey kenn xamul seen ni mu macha allah way xale yi nga xam ñoom la ñu boom toog ñu bokk ñoom ziyaare bi jàng alxuraan jàng xaddu bi xol yi tooy xëpp macha allah jamono yonent bi sax lu nu mel daloon na leen mhm. waaye ñu xam ni yàlla moo leen teg natt bi ñu dund ko. Mhm. moo tax sëñ Moussa Ka ca béyit ba ma ngi koy wax. Mhm. yàlla balaa laa ba jox la mbir yi. métti nga mhm. atténuer bi maa ngi jaar ci jéego gàllankoor. macha allah macha allah xeeru lan bi yaa. dina gërëm dina gërëm kii on le découvre. on le découvre xanaa ci ay doj ànd ak Ababacar lu nekk muy daj. mais wolof Ndiaye dafa ni. bu lëg lekkee olam na ko gërëmee coono. bu mbooloo mi yëpp. ni ñuy wute yëpp àndee doon benn dem ci béréb bi xool yi doon benn yéen yi doon benn pas-pas bi doon benn te lépp ñu wàkkilu ci yàlla nañ ko sant M2D sant ko Ousmane Masha Allah yàlla na fi sox ba doj ami xob mu jiite mbooloo mi liggéeyaat réew mi tabaxaat jikko yi defaraat jikko loolu lu mën a nekk la yàlla mën na ko def amiin soxla yaa rek mooy wax la ni dellu si nañ ak impression wu journée bi quoi. waaw ah, dellu si mhm. allah. Mhm. tey euh, wax dëgg yàlla. wan nañu ni ko lii mooy njiit. wan nañu Sénégal ni ko. li mooy fayda. Mhm. wan nañu Sénégal ni ko. xaw lu yërmande fi la nekk. ku ñu gis tey suñu ànd bi suñu ndaje bi la ko tàmbale ci jàng alxuraan yi te leader yi ku ci nekk li nga wax rek mu nekk wax ji mujj ayib ñu xam ne ànd bii ci m d mooy tontu senegal tiis si mu nekk mooy tontu Sénégal ñàkk démocratie gi ñu nekk mooy tontu senegal gi nga xam ni bu ñu liider yi àndee nekk benn say taxaw dinañ soppi réew mi dinañ jànkonteeg ñi fi nekk nag wan leen ni leen lu leen Sénégal jaral nag jaral nañu lu ko raw ndax xale yi daanu ñu gën a gore te loolu la ñu wane tey ci ñaan yi loolu la ñu wane tey ci taxawaay bi loolu lañ Ousmane wane tey ci émotion bi émotion bi daf ko jàpp ndax dafa am xol dafa am yërmande dafa xam luy bakkan waaye nag nekk njiit rek gur ay lex di ci ay soxor <laughs> kooku di njiit nit day am yërmande ñi day nekk jaboot nit dafay xool ni xale bi daanu mën na nekk sama doom mhm. nga jàppe ko foofu te tey loolu la wone ñu koy ñaanal yàlla ci barke nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yàlla suñu ànd bi yàgg yàlla ñu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla dafa cet yàlla ñu yàlla boole ñu nekk benn say xeex jële fi nekk fa fi nekk teg ko fi mu jiitu soppi Sénégal liggéey xale yi am liggéey dëkk bi naat ñun ñëpp ñu sabaru. amiin ci barke waxal gars nag ñu ñëw. Ah, ah, Serigne Serigne si bi quoi. ah bi la ñuy séddale. yoxos bi. yoxos bi. waaw yoxos bi bi. yoxos bi waa MDD. paañ bi. waaw ah. jàmbaas bi. ah. Eh, waa Patel ak eh, MDD beeg ñëpp nag. <laughs> Serigne bi leen ah waaw waaw sërite bi sërite bi waaw gars yi daal ñëwuñu ak loxo neen quoi ah dañu ñëw ñu sërite ah gis nga contribué nañ sax ci économie voilà am na jën am na gamba gis nga gamba am na crevette séchée waaw am na yoxo yi ma moom maa tegaloon nii gis nga yaa yaa indil waa Dakar sërite bi ak patriote yeeg waa PDS ñëpp seen député bi nag bu leen jàpp ni assemblée rek la mën a de jën yëpp la xam te jënd nag Ziguinchor bàyyi fa jënd bàyyi fa jënd macha allah lépp laa <laughs> treize yi pour finir daal ñu leen rassurer bu baax di leen wax que ni seen message inquiétude yi ngeen doon def xam nañ ñu mbëggeel la ak cofeel mhm. ak ñeewantal bi ngeen ñeewantu seen président ndax xam ni sonn na nag parce que boobu ak léegi mi ngi daw pour bëgg a satisfaire projet bi jaral na ko bakkanam jaral na ko guddee ma jaral na ko énergie bi yëpp mhm. yéen ñëpp yéen a ngi naan na noppal na noppal li ngeen ci jublu rek mooy da ngeen koo bëgg da ngeen koo yërëm te boobu noonu donc sentir sentir nañu émotion bi ngeen demee tey njàqare bi ngeen amoon ñu leen di rassurer que ni du woon dara émotion bi nag c'était vraiment intense loolu moo waral li am tey am mais sant nañu yàlla ñibbisi nañ ci jàmm on a passé une très belle journée de prière ñëpp kontaan nañ Sénégal yëpp kontaan nañ président mu ngi nii mu ngi si jàmm moo leen di nuyu donc yéen tamit nekk leen si jàmm macha allah alhamdulilah. jërëjëf voilà. merci yow it jàmbaar jàmbaar nga lool. mention spéciale à mention à la jeunesse sénégalaise. au patriote non nee naa la dama ko rebaptiser. kii amul dara ci ndof nit du nit dof nit nit la. baal dof bi baal dof nit ah, <laughs> merci beaucoup merci à vous la famille. nekk leen si jàmm yéen aussi. Uh-huh. mérite bi yëpp yéen la toute la jeunesse. Euh, xam leen que ni euh, le combat na fekk commencé te incha allah rabi nañ ci am victoire victoire bu mag a lañ ci am pour le peuple sénégalais pour l' avenir. et euh, voilà rester euh, rester euh, mobilisé sur l'essentiel et incha allah rabbi ñun ñëpp dinañ liggéeyal euh, yëkkati drapeau Sénégal ca kaw a kaw a kaw a kaw euh, euh, réew mi mën a naat jeunesse bi mën a épanouir seen biir dëkk et incha allah rabbi loolu c'est possible donc rester concentré sur l'essentiel e le combat continue nekk leen si jàmm passez une très belle soirée ñun agsi nañ si jàmm alhamdulilah on va rentrer à la maison. merci beaucoup la famille partagez la vidéo et ngeen xamal ñëpp que ni ñibbisi nañ Dakar ci jàmm et président mi ngi si jàmm mu ngi leen ni nuyu. et jot na seen ñaan yi jot na seen ay inquiétude yéen ñi nga xamante woon yéen a ngi doon def ay poste ñi ñu ngi doon xaba saalit sax bay jooy loolu lépp ci mbëggeel la mais mi ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp ci euh, seen. Euh, euh, ci seen euh, en tout cas ci seen euh, témoignage bu ngeen ko témoin seen témoigner seen soutien ak seen amour mu ngi leen ci remercier bu baax a baax loolu rek la quoi soo amee sa mbër mu lay nekkal ca naaj ba di la xeexal da nga koy wan aussi yow tamit sa mbëggeel da nga koy wan sa farlu da koy wan sa pas-pas day tax mu gën a góorgóorlu ci yoon bi te xam ka ni il est pas seul y a des soldats qui sont derrière et yoo xamante ne pare nañ pour jàppale ko à tout moment pare nañ pour ko ci combat bi du yomb nag c'est C'est très très difficile, mais on va, on va réussir ce combat ensemble. On va réussir ce, cette mission ensemble, Inch'Allah Rabbi. Donc, c'est le message bila la jeunesse. partagez leen vidéo bi restez positif restez patriote gëm suñu drapeau yëkkati suñu réew mu dem ci kanam amul leneen big up à tout le monde Kella Brazzers